ندب كريم سليل من كريم سليل من كرام قيار سادة العزور ندب nekk nadbun karimun salilun min karimin salilin min kiraamin xiyaari saadatin mazul mooy ku sell koo xam ne mhm. ci ak sellam ab sang ngi noonu bu bàyyi ko sell ci càllalaam boo ko toppee mhm. mu nekk càllala gu sell gu set moom yonent bi alayhi salaatu